salaatu allazi fi kulli shahrin wa fi safar xamaani ala mahin ma xabsa wa safar salaatu allazi fi kulli shahrin wa fi safar xamaani ala mahin ma xabsa wa safar salaatu allazi fi kulli shahrin wa fi safar xamaani ala sëñ bi ñëw lay nuyu waa ñoo ngi lay siyaar bu baax ñoo ngi la koy delloo. tur bi naka la. man Mouhamadou Seye. Mouhamed fa ngeen jógee. ñoo ngi jógee Ndar. mën nañoo xam lu waral guddig màggal gi ngeen ñëw choisir jumaa ji pour euh, fa passé ko fi. ah xanaa fas yéene siyaar ji ko tedd ki rek ndaxte mooy sunu lépp mooy sunu yaakaar tey ëllëg daal ndaxte tey soo dee xool bis tey moom mooy sunu indépendance moo tax daf ñuy jaral lépp daal ndaxte gannaaw yàlla moom la nu boole mooy sunu mooy sunu wasila. lu nu ab moom la lu nu ñàkkin moom la waaw moo tax ñu ñëw tey di ko dundal di jàng xasida jàng alxuraan jàng xasida waaw màggal bis bi ñaanal fasaale ñëpp daal waaw di ñaan si barki bis bi mu faj suñu aajo yëpp daal waaw. waaw lu tax ñu tànnal jumaa ji ñu paase kafi fi euh, ndaxte soo dee xool ku tedd ki mi ngi si jumaa ji ay doomam ñoo ngi si jumaa ji te léppam jumaa ji la kon nag looloo tax tamit. ñun tamit am nañu sabab pour ñëw si jumaa bi def suñu ay duwaaw. Ah, waaw ñoo ngi lay sant bu baax a baax jërëjëf. sëñ bi ñoo ngi lay nuyu. waaw ñu lay siyaar bu baax a baax a baax. fu ngeen jógee. ñun de daanaka ñu ngi nekk Touba lañ dëkk de <laughs> waaye daanaka Ndakaaru lañ nekk nag. tur bi naka la nit ñi sëñ Fall nag lañ dëkk Madi la ndongali Madi. Madi Madi Madi. Madinguer waaw. Malbel moo tax guddig màggal ngeen bàyyi seen kër yi ñëw ngir paase ko fii ci jumaay Touba. waaw lu am solo la sëñ Touba moo mel noonu yàlla ko may mooy mu wër adduna wër lépp mu nekk suñu borom wàcce ko te wuteele ko mbindeef waaye mu jox ko jë jëmi mbindeef te du mbindeef mu jëpp ko jëfi nit waaye du nit dañuy jàpp ne nit la waaye du nit suñu borom moom mooy kenn mooy doo xool ku ko neex mu jox ko ah, li lépp moom may suñ borom la waaw da ko jaarale sëñ Tuubaa mu nekkoon xaritu mu nekk jëwriñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam si yonent bi tànn ko mu nekk jëwriñam waaw moo tax mu nekkee Tuubaa li mu bëgg lépp mënu ko am tubaa fokk mu génn Tuubaa ndagam daaru mbindam la nekkoon wala ko suñ borom wanale ko yonent bi mu xam ne fii mënu fee li mu fi bëgg mënu fee am fokk mu génn njokk natt yoo xam ne maanaam moom rek bu samaan la nattu eh, ahlu badare gaa yu baax yëpp yëpp mu bëggoon ko nag mu xam ne fokk mu génn mu teg ko natt yoo xam ne fokk mu am ko rek moo tax. léegi bu ñu xam lan moo tax nga ñëw fii tey passé fi màggal ci jumaa gi lu tax nga tànn jumaa gi. waaw sant rek sant man chaque jour man Touba laa dëkk maa ngi dëkk Ndindi Sëñ Fall waaye Dakar laa nekk dama xam ne lu baax moom sëpp Touba nga koy defee foofu ñëpp Touba waaye guddi gi moom daanaka fii la baaxee moom guddi gi fépp la waaye guddi gi bu jotee moom. da ngay ñëw fii baax baaxale ko sëñ Tuubaa xam ak mayam noonu la toll. léegi naka ngeen ko fas yéenee passé. ci biir moom sëñ Tuubaa lu mu si santaane moom mooy lii rek jàmm yàlla si. siyaare si jàng si alxuraan jàng si xasida berle si berne si waaw moo tax ñu neew Tuubaa daal def ñu dindi fi ñëw jumaa ji di ko fi màggalee di déglu xasida yi loolu lépp taw la feebar bi suñu borom suñu borom saafara bi bu jugee ci màggal gi suñu borom. mu bañ fee del si at mu jugal jëlee ko fi incha allah taala waaw ci barke Sëriñ Tuubaa barke Sëriñ Muntaxa ñaan Sëriñ Muntaxa mu yàgg fi lool te wér am nañ ci mbégte lool lii am solo la ndax dëkk Tuubaa moom lu waay def rek moom liggéey Sëriñ Tuubaa nii ngeen def liggéey Sëriñ Tuubaa nii ñuy def liggéey Sëriñ Tuubaa ñëpp rek yiw bépp yàlla nañ ko yàlla boole ci barke Sëriñ Tuubaa rek moo taxoon am nañ ci mbégte lool kontaan nañ ci lool lool lool lool yàlla nañ ku fekkee ay déwén déwén nag waaw kenn bañ a màgg seen rajo bi yokk ba ko incha allah taala waaw jërëjëf. soxna si ñoo ngi leen ñu bi naka la. soxna Amina Diop. soxna Amina. jóge ba Louga. mën nañoo xam lan moo tax guddi màggal gi ngeen bàyyi seen kër yi ñëw paase ko fii ci jumaa ji. ñun murid yi jumaa ji lañu am amuñu lu ëpp jumaa ji te da ci ciy sentir da nga daal bis bi bu baax a baax a baax da bis bi saafonte beeg. ak euh, saafante bi parfois ko koo gëj a gis rek sax ngeen tase si si jeeg yooyu toog jàng alxuraan durus ak yooyu ziyaar say sëriñ ñaan si seen barke tamit amuñu daal ëpp jumaa ji. léegi bu ngeen nekkee ci jumaa ji naka ngeen ko fa yéene màggale ci biir jumaa ji ba fajar. fii ba fajar xanaa toog euh, durus si xasida yi toog teeluwaal tamit si xasida yeeg yooyu. waxtaan waxtaani loo xam dañu jëmale kanam waxtaani Cheikhul Khadim makum njabootam waxtaan si lu bari waaw mi ngi noonu daal def ko daal jotaayu yaay fal jotaayu jotaayu murit waaw comme yendu nañ si waañ beeg yooyu noonu ba heure bi jërëjëf waaw jërëjëf ñu lay fay bu baax hamdi wa sukri li man kulli bi saara loori dandoona soxtin anda sarsara loo sanaa'i wa ridwaanin bilaa saxatin musxaadali min bani daymaana ansaara lillahi kulla daa lillahi kulla daa arbaaru makramatin min ataxannaaw fi ajamma mansaara ginnaaw jàng wi neex di sant di la gërëm ndax man nañoo xam lu waral guddi màggal ngeen ñëw di ko paas yi fii ci jumaay Touba. waaleykum salaam wa rahmatullah ku baax ki ginnaaw bi la delloo ab siyaar suñu yëg-yëg ci guddi gi tey mooy dañoo toog suñu xel dalul ndax li tax mooy Serigne Touba liggéey bi bi mu koy liggéey yaakaar naa yombul woon kon ñun tey du ñëw ba Touba. fas yéenee fanaanee nelaw guddi gi kon dañoo fas yéenee dundal ko ci ni ko sëñ Touba waxee muy bernde ak jàng xasaay tamit te xasaay di mooy alxuraan ndax sëriñ Touba li mu def yaatu na lool. moo tax ñu am yëg-yëg ñëw ànd ak mbokki taalibe yi fii ci biir jumaa ji yëkkati ay xasida durus saafonte ak mbokki taalibe yi dem nuy ji mbokk yi loolu rek moo doonoon suñu yëg-yëg ci bis bi. lu tax ngeen tànn jumaay Touba ñëw fii. waaw jumaay Touba li tax ñu tànn ko ñëw. mooy li sëñ Touba woote màggal gi fii ci Touba loolu moo tax ñu taamoo ñëw ci jumaa ji di ko màggale fii loolu rek moo doonoon suñ yëg-yëg yaatu na lool ci bis bi nag waaw liñ ci bëgg a def yaatu na lool waaye dañ ciy def kéemtulaay suñu kattan rek waaw. salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi leen waaleykum salaam wa rahmatulah ñu ngi leen nuyu di leen ziare bu baax a baax te di leen fay nuyoo bu baax a baax. mën nañoo xam fu ngeen jógee. Ah, jamono ji ñoo ngi jógee dakaar Golf Sud. tur bi naka la. Alioune Gadiaga ñu naan ko Mouride Sarix. Alioune Gadiaga lan moo tax guddi màggal ngeen taamu bu jumaay Touba ñëw ngir passé fi guddi gi. ah li ko waral bëri na ndax daanaka suñu yaakaar tey ak ëllëg eh, dafa wax ni maam képp koo xam si ni rek mbégam maanaam sa mbég la bu bis bi dellusee rek na nga ñëw nga santale ko yàlla sunu borom. xëy na cant gi nag lim ci yéene maam moo rëy lool ba tax na moom ku ne xam na ni moom dundam gépp julli ci yonent bi yàlla maag bu bi sallallahu alayhi wa sallam ak tamit di sant yàlla loolu rek la dëkkee woon ak tamit di jël euh, ñi nga xam ne si ni maam mooy taalibe yëpp di leen euh, jëmale ci yoonu yàlla kon kooku noonu bu demee ba nga xam ne si ni dem na ba loot ci cant mu woote àddina bépp daal ñëpp nañ ñëw santale ma yàlla kon kooku noonu ñun fu mu ñu mënoon fekk rek ci àdduna war a bàyyi lépp rek ak bisbi bi ñëw defal ko li mu bëgg ci sunu kem kàttan ndax lépp loo gis rek nit ki mën na yéene waaye nag fi jëfam toll rek foofu lay jëfee waaw loolu lañ ci mën a wax. léegi ndax ko fas yéene màggalee fii ci biir jumaa ji ba fajar. ah moom de waaye comme ni nga fekk rek ñu koy def fas yéene ko maam xasida yi moom daanaka sant a ngi ci sikkar a ngi ci julli ci yonent bi yàlla bu màgg bu tedd bi xam sant nag moom daa maam daa làmboo mboolem jaamu yàlla yi presque. lépp daa bool nekk ci sant ci joxe xéewal yi ci suba ba léegi ñu ngi ci eh, ci dal yi doon liggéey ci xidma bi biñ demee ba guddi tamit ñu ñëw fii fas yéene ko liggéey la Serigne Touba waaw loolu la ñu fas yéene def incha allah. waaw jërëjëf. merci beaucoup jërëjëf. sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. man nañoo xam fu ngeen jógee. man maa ngi jóge ba déy ni maa liggéey jam ñaajo. tur bi naka la. tur bi Mbisaan Siis. licences man nañoo xam lu waral guddig màggal ngeen bàyyi kër yi ak lal yi taamu jumaay Touba ngir màggale fi guddi gi. waaw gannaaw ba sant yàlla julli sant bi ñu ngi gërëm Serigne Touba waaw xam nga bés bi dafa nekk bés boo xam ne dafa rëy si ab taalibe rëy rëy goo xam ne nii day waral bu ñu xëyee ba def ba def li nga xam ne moo war suba gi maanaam benn yëpp ñun dañu dañu dañu saxoo guddi gi ñëw fii nii yeggalee fi yeggalee fi guddi gi déglu wala durus li ñu war a durus julli fi ay rakk yu bari ñaan ñaan si yàlla looloo wara ñu bàyyi kër ga parce ga dara am lu mu nelaw a si yeneen moo tax ñu ñëw fi yeggale fi gàmm ta xam màggal ta xam ne benn la si at mi waaw loolu daal moo waral ñun ñu saxoo di ñëw fii guddig màggal guddig màggal gu jot pour gën a gën a gën a gën a fagaruwaat gën a fagaruwaat gën a gën a yokk suñu yitte si si si sëriñ bi ndax ndax suñu bëgg-bëgg mooy doon ay taalibe waaw loolu daal la ñaan yàlla moo tax sa gudd sa sa gudd màggal ñu faral di ñëw fii di fi yeggal see gudd gi moo gën moo ñu gënal toog kër ga daal na si yeneen waaw. sëñ bi ñoo ngi leen nuyu. waaw ñoo ngi baax baax. man nañoo xam fu ngeen jógee. man maa ngi jógee diwaanu Ndiakhate Ndiassane. tur bi naka la. si la. Xaadim mën ñoo xam lu waral guddi màggal ngeen bàyyi kër yi ak lal yi taamu jumaay Touba ngir màggalee fi guddi waaw ñun daanaka dañoo amul ku dul borom Touba yaakaar ñu ku moom juddu fekk si suñu waajur mu nekk ci yoon yi daal ñu si andi ñu tuba ñu fiy jàngee ba ni jógewaatee si dëkk bi dem ñibbi suñu dëkk jàng métier te bis yëpp amuñ benn bis bu dul guddi magal tuba moo moo waral bis bi bu ñu xëyee dañu fa dañu yéenoo liggéey ba jant bi so ñu daan sangu soli suñu yére dikk si jumaa ji ngir ngir ngir ngir santale suñu Tuubaa yàlla mi xamante ni moo ko may li mu am te it ku ne xam na fi adduna bi toll ak jàngoro ji fi am mboolem xew-xew yi fi amoon yëpp yàlla fan ko amatul ba tey ji mën nga ne ay lu ay juróom-ñetti weer xew-xew bi mooy xew-xew bi xamante ni moo amaat si adduna bi muy xew-xew boo xamante ni mbooloo fi daje ay million million moo fi daje ñu koy sant yàlla bu baax a baax ndax daanaka chaque jour rek moom day wane jëmmam ni mu toll fay ni mu toll si yàlla ak tamit ak tamit ni mel si gars yu baax yi nga xamante ni moom saa su ne rek saa su mbooloom saa su mbooloom bi jugee rek mbooloom dañu xam ñoom fan tàmbalee xam tamit fan jëm waaw tey di si gërëm baax a baax kilifa gu gu mag gi di Cheikh Mouhamadoul Mountakha ndax ndax ndax dañoo dimbali ñaari yoon ndax jàmm yàlla at yee jàll weer yee jàll dafa xawoon a jafe trop maa ñu koy yombalal ba mu yomb ñu trop ñu ngi koy sant baax baax bi des wàllum wàllum masque yi moo xam te ne digle ñu bëree bëri daanaka fi doon lii ñoom li ñu gis rek mooy wàllum jàngoor ji lay fekk waaye man dama ci amaat beneen gis-gis mooy ni mbooleem mbooleem dëkk yi nga xam te ni mbooleem bërëb wér Tuubaa nga xam te ni fas yeeg yooyu ñëpp jaar banaa jaar daraan bëri poussière ba soo fi jugee daanaka da da ngay xaw am am kii soj léegi masque yi day boole kale poussière bi ba noppi mujj la si jàngoor ji te ñaan ci barke guddi gii di ñaan ci barke borom barab bii nii di ñaan ci barke borom dëkk bii bis bu màggal gi jeexee yàlla na fi jàngoor ji jeex si si àdduna bépp ci barke borom Tuubaa yéen nag ñoo ngi lay sant di leen ndax li ngeen def rafet na trop waaw ndax ñun amuñu lu dul sëñ bi waaw tamit fu ñu ci waay woo mu neexee la dañ la wuji waaw salaatu allazi fi kulli shahrin wa fi safar